قصدنا من فما فضلا آه. أتينا من صفى أصلا قصدنا من سما فضلا أتينا من صفى أصلا قصدنا من سما فضلا أتينا من صفى أصلا قصدنا من سما فضلا وأعطينا من صفا خلفنا قصدنا من سما فضلا أتينا من صفا خلفنا قصدنا من سما فضلا أتينا من صفا خلفنا حمدنا Pas peu, le que nous te rendons voudrait se doter d'une puissance telle qu'il survole les mers et les océans, qu'il transcende les frontières et les ténèbres pour inonder le cœur des êtres humains et de tous les êtres. C'est grâce à tes prières reçues comme une offrande matinale durant notre dernière entrevue en cette belle journée du 4 novembre 2012 que nous allons réveiller les plus beaux souvenirs de ton passage sur Terre, pas peu d'éminents hommes de lettres et de culture de ce pays témoignent non seulement de leur affection envers ta personne, mais aussi de ton apport intellectuel au Sénégal. Pas Nous aurions tant aimé que tu assistes à la diffusion de ce travail. L'homme propose, Dieu dispose. La mort a jeté ses tentacules et te voilà à jamais parti. papa. Qu'Allah te fasse ressusciter sur les lits de Firdaus et déverse sa lumière divine sur ta demeure que cette lumière ne faiblit point par la grâce du sceau de la prophétie Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que nous en bénéficions par le truchement d'Abou Labas Ahmad Atidjani et de cher Seydi Maliksi radiallahu ta'ala anhu papa il y la yàlla fay yiw la barsaq te fait gi nga bàyyi de amin au milieu d'une forêt dense, où le bambou s'entrelace avec la palmeraie, la région de Ziguinchor se situe dans la zone sud-ouest du Sénégal. Terre fertile, à la pluviométrie abondante, elle est habitée par une mosaïque de groupements humains composés de Djola, Peul, Mandiak, Mankagne, Balante, Bainouk, Wolof, Serrer, tout le monde s'attendait à ce que ces groupements vivent en parfaite harmonie et fassent vivre le pays entier s'ils arrivaient à exploiter le potentiel agricole de leur région. Malheureusement, les populations sont confrontées à une véritable tragédie depuis plus de trois décennies, avec la naissance le 26 décembre 1982 d'un mouvement indépendantiste armé. Dans un autre contexte, dans la même ville de Ziguinchor, plus précisément au quartier Niafoulen, un conflit vieux de 40 années oppose les communautés Diola et les communautés Sossé pour la direction de la mosquée du quartier, fermée à la prière depuis que les Coétiens aient fini de la construire dans les années 80. Devant cette vive tension qui oppose les Sossé et les Diola du quartier, un fils de Serine Babakarsi de Tiawan, essaya durant son séjour d'une dizaine de jours à Ziguinchor de les réconcilier afin que cette demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala puisse être réouverte à la prière et dans la sérénité. La mission était noble, la tâche difficile, mais l'espoir était au bout des efforts de celui qui s'était imposé deux fils comme médiateur dans ce différend. Cher Seydi Mohamedou Mansourci. Khalif général du Tidjane. C'est une main c'est 87 ans d'amour, du savoir et de don de soi qui lui ont valu le titre honorifique de Borom Darati. Deux mots qui résument éloquemment une existence remplie de sagesse et de bonheur qui débute le 15 août de l'année 1925, jour de sa naissance à Tibawan. Rimban Bansourci est un petit-fils de Seydi Laji Maliksi, ce continuateur de la mission du saint-homme du Fouta et Laji Omar Fouti Outal, qui a introduit la Tidaniya en Afrique noire. Cet héritage, reçu du père fondateur cher Ahmed Tiyan Sherif du Maroc, est connu pour être l'une des confréries islamiques les plus importantes du محمد المنصور آه، رضي الله عنه وطيب ثرى ببابا الحاج عبد العزيز دي جند عبدنا دفع ملوم بنت تكو تي لخوم نكو خلافة جي بنت سلوخ نكو نك ماغي لي جوخ سر الخلافة ولا صح نيغي لكو يفيتلي قد وليتمو سر الخلافة waaw sëñ Mansour sa papa mu ne li yonent bi wax rek ne kullun muyassarun li maa xuliqa la wa anta mu ne te yow mimman xalaqahu allahu bokk nga ci ñi yàlla bind li taalimi wa duaa yàlla daf la boole ci kilifa yi mu bind ngir ñuy xamal nit ñi seen borom di leen ñaanal yàlla itam yàlla di nangu kon nag lépp kon nag lépp nee na kon nag lépp jëlee nañ ko ci loxol yàlla ñaan ko ca ndimbal. jëlee nañ ko ci loxol yàlla ñaan ko ca ndimbal. maxataa yi di wala prix. ànd ak dëgëralu yàlla akuk ndimbalam. ba tey siri. akuk jàppandalam. ba tawfiq yi. ak katta ak maye kattanam ci topp. ko bi yadi rasulillah. teg ko ci loxol yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. jëlee ko ci. jëlee ko ci. muy dox muy dox. jaar ci loxol Cheikh de Tidiane. jaar ci loxol maam Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu anhu. ak Chérif Mouhamadul Ghali. Cheikh Al Hadj Omar. maam Cheikh Al Hadj Omar Fouti. ak ak al Alfahim ma tamam sa Mam Cheikh Al Hadj Malick ak Serigne Babacar si ak jaamu yalla yu tok fi ak bis ak ñaan yalla ko yalla Serigne bi. Serigne était un des grands historiens de l'islam. Il connaissait l'histoire de l'islam pas seulement les débats théoriques, les débats juridiques, les discussions spirituelles, mais une connaissance pratique de l'histoire de l'islam. Une, capacité de dire exactement qui est qui et qui a fait quoi. Tous ceux qui l'ont connu ne se lassent jamais de se rappeler comment il animait la nuit du Maulud, qui marque la célébration de la naissance du prophète Mohammed Durant cette nuit, Serine Mansour racontait la biographie du prophète Mohammed à travers le livre de El Malik, Hors décanté, Urhila Suzahab, que le grand chanteur Doudou Kandembaye déclinait en chanson polyphonique. C'est toujours un régal d'entendre ce fils de Baïdondé saisir au rebond les premiers mots du chapitre qui devraient être racontés dès que Barom Daradi en fit l'annonce à haute voix. de Sohna Aïssa Tusek et de Sérig Babacar Sy, radiallahu ta'ala andou Mansour avait très tôt perdu son jeune frère, Sérig Ousmane Sy. Il vivait alors une très bonne partie de sa jeunesse avec son demi-frère, Sérig Cheikh Ahmed Sy, Al-Maktoum. Sérig Mansour mi, tabarkalla tabarkalla, nous ne def de commandement. Voilà. moom lu xew kenn ku ci nekk nga sa waaw ndax it góor gi moo nu defal loolu dinu yebal ci mag ñi dem leen ci sëriñ Birane mu jàngal leen wird dem leen ci sëriñ Cheybatu mu jàngal leen Chan Fara wala Ibnu Durayd dem leen ca euh, sëriñ Alioune Gueye mu jàngal leen maqamatul Hariri ñëw leen ma jàngal leen Shuara Sitt ñëw leen ma jàngal leen fiq yëpp ñëw leen ma jàngal leen naxu yëpp ñëw leen ma jàngal leen mantiq ñëw leen ma jàngal leen bayan yooyu yëpp mu sonne ko ci sunu wàll waaw ñoo dalandoo laxdari nee ñoo dalandoo it laxdari yu ñoo jàppandoo werd bésu ajjuma ñoo jàppandoo it werd bésu ajjuma ñoo amandoo lijaasa ñoo amandoo it lijaasa ñoo amandoo litlaax ñoo amandoo it litlaax ba daggateetu cheikh boo daggee deretu cheikh Mansour cay naaj Mansour cay naaj boo daggee sama deret boo daggee loxo bu yaa Seydi euh, Mansour cheikh cay naaj cay naaj ñoo bokk café gu ñuy naan ñoo bokk lal bu ñuy tëdd 1940 góor gi jënd benn pàkk ci benn tubaab Ils étaient également à Tivaouane avec leur frère cadet Serigne Abdou Aziz la infatigable porte-parole de la famille de la Malick de Serigne Habib qui fut très tôt arraché à notre affection, et de Serigne Pape Malixi, le benjamin de la famille de Serine Babakarsi. Pendant ce temps, leur frère aîné, Serine Mustafasi, et leur frère Ahmed Ahmedsi vivaient à Dakar. Serine Mustafasi Djamil était resté à Dakar sur instruction de son père et ne devait plus jamais retourner à Tiawan. Lorsqu'il disparut, en 8 décembre 1993, il fut inhumé à Dakar dans sa demeure sise à face de l'ordre. Curieux hasard du destin, la divine providence fit que Seri Mustafa Sidjamil et Serine Mansoussi Baram Daradi soient réunis pour l'éternité dans une même trajectoire temporelle. Ils répondent à la même date à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'au-delà, le 8 décembre 1993 au matin pour Sidi Jamil et le 8 décembre 2012 au soir pour Borom Daradi, à 19 ans d'intervalle jour pour jour. Dans un contexte particulier de l'histoire de la famille d'Elaj Maliksi, la disparition soudaine de Serine Babakarsi le 25 mars 1957 mit Serine Mansour et Serine Cher devant de lourdes responsabilités alors qu'ils n'avaient pas encore 40 ans. Ce sont ces prédispositions qui lui ont permis, durant son séjour à Zikinchor, d'amener les deux communautés à une union des cœurs et des esprits dans la foi musulmane il y a des moments, et des moments de crise en particulier, où une société a besoin de surmonter toutes ses divisions, mhm. de dire nous venons cette fois-ci en tant que Sénégalais, en tant que communauté unie, pour essayer de retrouver le socle même euh, sur lequel notre unité est construite, pour réfléchir aux meilleurs moyens de dépasser l'état de crise que nous vivons, pour nous projeter vers notre avenir c'est le moment où quelqu'un comme Céline Mansourci, qui n'a jamais euh, euh, hésité à payer de sa personne pour remplir ce rôle-là, c'est le moment donc où ces autorités euh, représentent la force morale de notre société, la force spirituelle qui va à la fois nous rappeler ce qui nous unit et qui va aussi nous rappeler que nous devons nous diriger vers l'essentiel. Il convoqua Atiawan Bashir Sanya, qui est le fils d'Arfan Kemo Sanya de Mandegan. Ce dernier lui fournit toutes les informations relatives aux différents. Sering Mansour lui demande alors de transmettre aux habitants de Niafoulen son souhait de voir ouvrir la mosquée à la prière. Il lui demanda également d'en informer son frère Ismaël Sanya, shérif Aliou Haïdara, l'imam Ratib de Ziguinchor, Serine Samba Imam Mohamed Sow, les chefs religieux Abba Sanya, Feu Baké Kamara, Feu Monseigneur Mexancoli et tous les habitants de Ziguinchor et de Casamance en général. En novembre 2006, alors qu'il se trouvait au Maroc pour effectuer la ziyara auprès de Cheikh Ahmed Tidiane Cherif, Serine Mansour décida d'effectuer le voyage en Casamance avant d'aller au pèlerinage à la Mecque. C'est important pour nous, et c'est le travail qui est attendu de chercheurs, en particulier de chercheurs en sciences sociales, qui sont africains, sénégalais, et qui s'intéressent à la société sénégalaise, de pouvoir intégrer l'ensemble des productions intellectuelles, l'ensemble des réflexions, que ce soit des réflexions laïques ou religieuses, à leurs investigations. Et l'idée, c'est effectivement la possibilité, parce qu'on ne peut pas former des intellectuels sénégalais, on ne peut pas former des chercheurs capables de réfléchir sur la société sénégalaise, de proposer des procédures de dialogue et de discussion et de proposer des solutions s'ils ne sont pas capables de comprendre l'ensemble des composantes de la société sénégalaise, s'ils ne sont pas capables de comprendre l'ensemble des personnes qui interviennent dans le débat. Et dans le cas particulier de Serine Mansour, si et dans le cas particulier de ce qu'on appelle les marabouts confréries, mhm. ils sont des leaders. Mhm. Et comme leaders, ils donnent des orientations, des orientations qui reposent sur une réflexion. Engager le dialogue avec eux devient essentiel. Serigne Mansour Kazamas, bi mu wàccee muy mënoon a utiliser dayu yu bari mooy mu teg ko ci suuf mooy dafa joxañ baaraamam daan na ñëwuma fi pour que Seydil Xaaji Malick mooy sama maam ñëwuma fi pour que na Cheikh Al Khalifa Serigne si mooy sama baay mu ne dama ñëw invité tout le monde bépp borom xam-xam Euh, yàlla dogal aussi euh, ñu mu ko seqal mooy góor gi Abba Sagna ak euh, Arona Cissé ak mbokk yu baax ndax damay faral di wax ne gor gor mooy ñaan waaye sang mooy maye kon fa tabaarakallaahu kon ñoom ay sang lan eh, Ziguinchor amoo réew nee na moom ba muy ba mu ñëwee Ziguinchor dafa fekk jumaa ji dafa bëri coow coow bu mëtti ba indi jaxasoo ci bi dëkk mais nag moom si la ko si la sëñ bi dégg coow loolu boobu temps sëñ bi fekkoon na mu tukki moom nag si la dégg coow loolu sëñ bi ne moom dafay quitté fu mu nekkoon bu ñibbisee mu continuer sur Ziguinchor pour ñëw ubbi régler problème jumaa ji. pour le Maroc bis euh, la boo xam ne man duma ko fàtte. Euh, dafa doon loo xam ne euh, lu rëy la ci man ndax man ni ko gisee woon defoon naa ne coow dina am defoon naa ne leneen dina am waaye ñëpp dañu ànd ak seen sago calme. dégg deglu ko dégg le lu euh, vraiment lolu lu rëy la woon ci man ndax man euh, xawoon naa ragal fa xawoon naa tiit waaw. jumaa ji mu ci quartier ñefu leen ci Ziguinchor. pour te dire que jumaa jooju ñun bi ñu xalé fa lañ doon footballé fekk ni déjà ñu poser fondation yi donc ba 2006 jumaa ji kenn jullewu fa. jumaa bi buñ ko doon tabax depuis 67 après superficie au moins aller un peu moins de un hectare. un peu moins de hectare mais toute la surface là est inexploitée. surface ne c'est au cours d'une émission à la télé que Serine Mansour apprenait pour la première fois l'existence du conflit autour de la mosquée de Niafoulen. Surpris par cette situation, il se posa la question suivante. Comment se fait-il qu'une mosquée qui est au cœur de Zikinchor soit l'objet d'un différend sans que personne n'ait essayé de le régler Malgré les mises en garde de ses proches sur la sensibilité de la question, il répondait tout simplement qu'il allait s'en charger lui-même. dama dem ka dama dem Tiwaawan bi mu paree li mu ñi mu doon recevoir mu woomu ci biir néegam ni ma waaw dégg naa ni Casamance dafa am benn jumaa ju fa tëj yoo xam ne tëju fa lu mat ñeent fukki at ma ne ko dëgg la mu ne ma lu waral loolu ma ne ko ah pap eh, joolaay ak soose yi daal ñoo nekk di ko xëcco ba gouvernement bi tëj jumaa ji

xam nga rek ak problème euh, rébellion bi am Casamance tax ba problème mu jumaa ji am benn jël benn dimension boo xam ne ñëpp dañu ragaloon a de sujet bi euh, bi ñu toogee une semaine après bu woolu ma ma ñëw mu ne ma dinaa dem Casamance de ma ne ko ah papa de kooku moom dina doon bëgg di ci man ak taalibe yi fa nekk ñoom ñëpp dañu bëgg mu ne ma xam nga lu may yóbbu Casamance ma ko déet xanaa nemmeeku ta taalibe mu ne ma waaw ak tijji jumaa ji ma ne ko papa nga ne tijji jumaa ji ma ne ko papa jumaa jooju man bu doon suma bu doon man rek bu ci sax addu mu ne ma damay fonto sëñ Babacar ma feeñu biit ne ma ma dem Casamance dem tijji jumaa ji xam nga foofu moom débat amatu fa waaye kere bi nga xam ne bii ñu ngi ñëw sigéen soor yàlla def na sax kéem taan bu rëy da am benn njaago boo xam ne dafa feebaroon tëdd hôpital muuma la bi mu tëdd hôpital dafa koy butéel mu misaal bokk yi ne leen nañ ma waaj génne hôpital bi mu ne ko médecin bi nanguwul mu ne leen alxaaji Malick si mooy ñëw ñu di ko laaj ba ñu génne photo si jaaji Malick mu ne leen kii mu ngi ci avion di ñëw mu ne parasol bi ak kurus gi te ki yor parasol bi ak kurus gi mi ngi ci avion bi ñëw kon il faut ñu génne kooku ci Ziguinchor mi ngi dëkk dëkk bu ñu wax croisement Diaroumé Le 6 décembre 2006 à 15h, Serigne Mansour était déjà à l'aéroport de Dakar pour trouver, disait-il, un avion qui devait le transporter à Ziguinchor. man daal dama à bés sëñ Habib téléphoné moi. ni alsan Alsane sam papa ngi aéroport ma ne ko suis ah bon fan la jëm si mu ne ma Casamance ma ne ko si Casamance il est trois heures quinze heures ma ne ko avion amul mu ne ah, demal fekki ko salon d'honneur xanaa yow nga mën ci dara nga mën wax ak moom ma affolé taal suma oto yegg aéroport il était quatre heures quatre heures dix ni ko waxtaan ak moom ni ko waaw Habib si wax na ma demam Casamance bi waaye nag papa xam nga avion yi huit heures lañ ci départ buñ départee def aller retour Dakar Ziguinchor Dakar ba suba lañuy ñuy ma doon ñaan rek pour nga xaar mu ba suba rek fanaan ba suba suba teel ñu ñëw ma ne ma yàgg Habib si bu leen ma fanto tey Casamance lay fanaan ma xool mara bu gis àll bi mu tollu rek ma ne fii moom ku yóbboo rek dogu ci pexe nag Nous ñàkk ndaxte avion militaire am Finalement, ce fut un aéronef de l'armée sénégalaise qui effectua le voyage vers 18 heures. bi muy ñëw ci Ziguinchor mi ngi ànd ak njabootam yëpp ndax mi ngi jàmboo ak njabootu Seydou Moustapha C. Jamil muy sëñ Mansour si Jamil ànd ak rakkam sëñ Mansour si Abdul Aziz fa tubaarakallaahu ànd ak njabootam sëñ Abib si ak soxna Ummu Amira ak njaboot gu takku ak muqaddam yu takku

amulon bobu mobilisation bimu fa ñëw ak maga amulon bobu mobilisation aéroport ba HLM nema li ci nit kenn xamul nu mu toll waye nak waye nak li li li amon ci dëkk bi moy danaka presque couvre-feu la woon autorité yi du point de vue sécurité ils étaient sur leurs dents kër gi rek déjà presque à un kilomètre à la ronde il y avait et l'armée et la Légion de gendarmerie et les bérets rouges La principale mission que Borom Daradi s'était assignée était de faire prospérer le foyer intellectuel, allumé par son grand-père El et son père Serigne Babakarsi. Il devait également assurer la formation des élèves qui fréquentaient l'école de son homonyme oncle et beau-père Serine Mansoussi Balhaoumi. En effet, Sey Mansour Boram Daradi était marié à la fille de ce dernier, Sœur Nafatousi Mansour, sœur aînée de Sey Maïsi Mansour, Khalif général de Tidiane. Ainsi, durant toute sa jeunesse, il faisait la navette entre l'école de son beau-père le matin et celle de son père dans l'après-midi. dana am koo xam ne day ñëw am loo ko jàngal te lu am lu mu lu mu dul dégg mu war la ko laaj nga xam koo xam ni boo ko laajee fekk xam-xam moo daf naan xaw ma ko te dañ koy bañ sëriñ bi daf daan yaatal kooku bu la xoolee nga xaw a inquiété wu sax mu laaj la ne la lan la lu la réer kooku xam-xam bu mat moo koy waral. Euh, bi ci tegu mooy day am koo xam ne day ñëw xaw a am arrogance suus koo xam ni boo demee ci arab dañ koy tuddee mu taajirif koo xam ni léeg-léeg day xaw a indi ay mbir wala xaw a peetine tuuti kooku kon nga fexe ba mën koo gérer ci biir daara ji noonu sëriñ bi daan na ko bàyyi xel bu dee ñëw ak keneen koo xam ne day ñëw di laaj ay masala te day bëri lu muy laaj yi muy laaj am na ci yoo dana ko bëgg xam am na ci yoo ne dana la xoolaal waaye ba xam fu sa xam-xam toll waaye bi daan na ko gérer ci anam bu rafet. daara ji boobu bu ñu génnee fii di dem da ngay ne mbooloo moo xam ne. da nga naan lii ñaata daayira waaw. 54 bi ma ñëw ci biir xaw mu jàngal ma fanweeri at ak ñett yoo xam ne bu xëyee 8 heures dana ko fekk toog li fay daal di jeexul du jóg ay 8 xam nga mbaay julli timis yenn saa yi daan jàng ba une rëcc. deux heures jub jege si ñu dégg ko ne ko ah sëñ bi kat ndékki laa ngi nii ma ne baax na ma ñëw continue continue ba trois heures quatre heures di bàyyi jot ñu nekk sëñ bi añ bi añ bi ñëw na fi añ beeg ndékki li fekkee dinañu fi yenn saa yi mu coppati fi coppati fi reerwaat ci daara ji yenn saa yi mu ne taalibe lekk la xalifa bi ni nga xamee ne moom la organisé woon daaraam dafay delluwaat ci ñaar ca mooy alquran ak sunna ki nga xam ne dafa ñëw jotagul jàng alquran dañ koy dalal mu jàng alquranul karim ba du cay cëram moo xam mokkal la moo xam miin la moo xam wàcc la mu am ko su ko amee ba noppi nag day dellusiwaat ci xam jéem a xam téere bi ci jéem a xam téere bi nag yaa ngi delluwaat ci xam yi mu làmboo ci ay atti noonu la amee it ci li nga xam ne moo lay dimbalee ngir nga xam làmmiñu arab ñu koy wax luxa ak li lay dimbale nga xam grammaire wa arab ñu koy wax naxu yooyu yëpp it dafa am programme boo ci daan jël bu ma ko xëysee dana fekk fii mu toog nii la ko tafsir ko tafasir yi wëree ñu ngi teg fii ruuxul maani teg fii ruuxul bayaan teg fii maraqiq teg fii sawi alal jalal yi teg fii xurtubi teg fii Kashaf teg fi Ibnu Kathir ak yeneen téere yu bare bare bu ci nekk mu ngay liir liñ ci war a jàng su génnee nag yooyu mu doon liir dana ko dana ko tënk bu ci nekk la mu ci jëlee dana ko tënk ci benn kayit ñëw nag bu ñëwee euh, saa yu alal jaral li la firilee waaye su ko defee bu ñëwee buñ aaye ju mu jël bala muy euh, commencé prime ñu war a dal bopp aaye jooju dana wax téere yi bu nekk la nga ca wax daanaa fekke ñëpp wër ko te ay fóore yoo xam ne yi yi wër ko ca tafsirul quran itam aaya bu mu la jàngal daf lay indaale même tor yañ ca def ak euh, sharxa ba da koy indaale moom daf koy mokkalaale waaw wante euh, bokkul ak euh, tafsir bi xew te mooy niñ ko mën a waxee sax tafsiru dàq koor la ndax bu fekkee ne weeru koor wi lu day ni juróom benn fukki xisib nga bëgg ko firi ci benn weeru koor juróom benn fukk yi bis bu ne nga bëgg am ñaari xisib loolu doo former ay firikat ay déglukat rek ngay am ci at mii beneen yoon mën nga am beneen at loolu xalifa bi euh, loolu du woon mission ndax dafa war a former ñoo xam ne dañu war a génn defi tafsir boobu loolu moo waral daf ko joxoon li mu laaj bu bu ñu masaan tàmbali euh, Baye Ibrahima Diop di naaru gànnaar ndax wi naar la naara ko jàngal moom mooy jàng nisif bi góor gi doog a yëkkati tàmbali su tàmbalee dafay jàngale euh, euh, yax bi waaye day jàngale sharxa bi su ko defee bu yëkkatee doxal tuuti dina ne oustaz Malick yëral foofu lu mu def léeg-léeg mu yére ba sori mu ne ko ah kooku dee laal na ci waaye ruuxul maani moo ko laal nangam nangam ruuxul bayaan moo ko laal faxru diini razi moo ko laal nga xam ne kon mënul toog ci jataay yor tafsir yépp waaye tàggu na siir yu bëri loolu moo waral yéex a génnam monde arabe dafa am fu ñuy référé wu mooy euh, li nga xam ne mooy Euh, euh, euh, littérature authentique bi fi jiitu woon nga xamante ni moo maanaam ku ku ku ku bindewul noonu tam foog nga référé wu ca lool te mooy suaraw sitta tabarkalla ñi nga xamante dañ dañu jekk woon arab yi yooyu nag mu la doon jàngale ci waaw moom la doon jàngale ci monde arabe bu yàgg ba moom la ñu doon jàngale Tiwaawan Sëriñ Mansour it loolu la doon jàngale euh, Mansour, je dirais tout simplement, c'est un classique. Un classique dans le sens où euh, il est resté euh, fidèle à cette tradition poétique connue dans le monde arabe, inaugurée par d'abord Kab ibn Zahir, mais continuée par Al-Boussairi dans sa Bourda. Euh, dans sa création, dans les poèmes qu'il a eu à produire, on note ce ton-là, on note cet accent classique, c'est-à-dire que c'est une poésie complètement conforme euh, au, à ce genre littéraire qu'on appelle la poésie arabe classique, euh, aussi bien au niveau de la kafia qu'on appelle la rime, que des mesures et des différentes formes qu'on appelle les haouzanes, qu'il maîtrise euh, très très bien. J'ai l'habitude de dire que Serine Mansourci est l'une des perles rares du point de vue en fait de ce qu'on peut appeler fiqhul C'est-à-dire, en vérité, Serine Mansour est un archéologue de la langue. Serine Mansour fait partie de ce qu'on peut appeler les lexicographes, c'est-à-dire que euh, son écriture ainsi que son discours d'ailleurs, reflètent euh, reflète une profonde connaissance de la langue arabe, non pas du point de vue, euh, je veux dire, du vocabulaire ou du point de vue de la peut-être de, la grammaire, etc. Mais Céline Mansour est capable de, si on pouvait même le dire de manière très prosaïque, de suivre la généalogie des mots de suivre la généalogie des concepts jusqu'à leurs racines, jusqu'à leur origine. Ce qui donne à son écriture euh, une très grande euh, richesse euh, sur le plan linguistique, une très grande richesse sur le plan lexicographique il n'avait pas à traduire un mot dans une autre langue sans pour autant savoir la quintessence. Serigne Mansour ne sautait pas un mot en arabe parce que tout simplement n'ayant pas le correspondant en wolof. Dans une classe, il y sax une école boo xam ni ci Sénégal qui a wax euh, ñoo def euh, wax achar la le poème bilingue Ben école la boo xam ne ñëpp ko def manam si Tiwaawoon bo fi ñëwoon manam wax ni. سني آه، ما مخلف أبا بكر مخرج كوي كم من كان ذا حرفة فليحيها أبدا موجن سجن دم دومال يلا دم دومال يلا أدك يا وسيت بيت بي وي بي موي دفنا بين خاد بي عرب من كان ذا حرفة فليحيها أبدا موجن سجن دم دومال يلا أدك يا مدارك أي دف ولف مي دف لولو كي كو جيكي داف سي تيوال ني خامكو بوتيتر بيان ما خامنوكو مي لي ني سي خام سي ايكولو شيخ حاج مالك سي موي سيرن بابكر سي alors sëñ Babacar Sy bi mu ko defaree ba pare gis nañ ni ñi ci toppaat defaat ko ci moom sëñ Babacar mooy Alhaji Abdou Aziz Sy après Cheikh Hadji Aziz Sy gis nañ ñi ko defaat gis ci kër gi sëñ Mansour Sy ci la euh, jazaka rabbuka yaa cheikhal abar ci way wu rëy bi nga way sëriñ bu mag bi di mbër jazaka rabbuka yaa Abdou Aziz al abar ci way wu rëy ñu ngawari ni bu mag mi ñu mbar xat bu tasa bi xasiidatin mu koy yi natin melay xali Mais 40 années de dissension ne se règlent pas aussi facilement. Sérignement Sourci, Borom Daradi, a usé de beaucoup de pédagogie, de tact et de diplomatie. Ce n'était pas facile, parce que les deux communautés avaient campé chacune sur ses positions. Mais il rappelait durant tout le processus qu'il n'était pas venu en donneur de leçons. Ainsi, devant cette foultitude d'hommes de science, d'hommes de foi, et vu la délicatesse de la question, Serine Mansour devait développer des arguments très solides dans le discours qu'il allait leur tenir. Il produisit ainsi un texte d'une richesse extraordinaire, qu'il rendra public et qui sera lu au stade Aliun Sito et Diata, lieu de sa première rencontre avec les populations de Zikinchor. Ah, Eh, gouverneur moo fa jiitu gouverneur wad bi gouverneur ñëwee waxtaan ak marabu marabu kontaan laata muy jóg mu ne ko gouverneur dinaa la may ma déy ko ma ne ko gouverneur catholique la ma ba ma soppi ko def ko bi Rome jox ko bii may ko bi may ko paas may ko argent de poche ba pare ñaanal ko ne ko yaay yaay yaay chef yaay doon si chefu gouverneur yi Sénégal te waa ji moom la doon moo nekk dagat ba dellu si kër gi mu ni ma dafa am lu ma war si si dëkk bi te defaguma ko ma ni ko lan la mu ni fii am na benn archevêque bi fi nekk ma ni ko waaw mu ni ma man maa ko fekk si maa war dem seeti ko nuyu ko ndax moom si boppam dafa feebar mu ni comme sama déplacement dafa jafe dama bëgg yow ak sëñ Mansour bu sëñ ngeen dem si sama tur ngeen duyul ma ko seetal na mu def mu yebal ñu ci monseigneur Maxence Je ñu Mansour Bala Diab bi moo parole ne nous venons de la part du Khalife général de Tijane, Mohamed Mansour Sy Mansour dafa daane rek góor gi bënn bëtam Joy. jooy monseigneur Joy, pendant un bon moment puis il s'est repris mu mu jéggalu ne jéggal leen émotion bi moo ma jàpp li tax ma jooy kaddu sunu monseigneur euh, Hyacinthe Thiandoum mo sa wax kaddu yooyu ñoo riir sama nopp ba ñoo riiraat sama nopp léegi bi ngeen yegsee euh, daf ma ne woon Casamance pour mu am il faut mu am sédage Malick Sy bu jógee Tivaouane ñoo fi def fi ay ñaan kon nag boo leen yegg tey ni ma le xalif général des Tijanes Mouhamad Mansour si moo leen yebal te mu ngi fii ci Casamance sama xol dafa tooy moo tax ma jooy. archevêque bi dafa wax ni ma gis nga li ngeen def depuis 50 ans ñu ngi koy jéem diine yëpp jéem nañ ko am politique yëpp depuis ñoom euh, Émile Émile Badiane mais mënuñu si dara li ngeen def il faut être casacé pour comprendre importance bi. bi nu del see nu wax ko góor gi ah, man mission rek laa yeggali seen maam Abdou tum bàyyi bi mu fi ñëwee li mu fi def def na ko fi ñaan yi mu mujj ñaan ca Casamance kooku faj na lépp maam Abdou ngay ñaan ca Casamance wabil walil aarifil bangiri yunusina المنشب الكبير مام عبدو وين كذا ماس من كوي جار لك بانير ابن الرسول المصطفى العدناني خليفة الشيخ بلا بوتاني وبالبني أنجم الظلام الصادة البررة الأعلام أنزل على كذا معاه En fait, Serine Mansour, de la vie de tous les puristes, est un écrivain hors pair. Durant son voyage à la Mecque, Serine Mansour passait toute la journée à écrire au recto de 500 feuilles d'une rame de papier achetée en cours de route. Après 15 jours passés entre la Mecque et Médine, sur son chemin de retour au Maroc, d'où il était parti pour son pèlerinage, Serigne Mansour déclara qu'il lui fallait un autre stock de papier, parce que celui acheté à l'aller était complètement épuisé. Et là, nous nous sommes posé la question de savoir comment un homme pouvait conserver, à 80 ans passés, une telle vivacité intellectuelle au point de pouvoir remplir les 500 feuilles d'une rame de papier au cours d'un voyage de 15 jours. شيخ سيدنا حمد المنصور مو بند برين مونا اي سان اي واي يو خامني اك اي تيري يو خامني بند نك او بان سان دو مونا بو كوماسي دي دفر خلاص زا بو شيخ الحاج مالك رضي الله تعالى و بو مو ديمي بو تي سينكيو مونتي بي فو لاك يالا سبحانه وتعالى دال دي مومي تي والو تيري يو ماك يي خامني بند نك بوك نا تي تيري بو خامني مونكو بند تنبيه المنهمك جاي لجواز تعدد الجمعة في المصر الواحد da bu doomi xam-xam ay wala sénégalais yu bari dañuy defee ne benn dëkk ñaari juma waru fa te fekk dagaan na bu fekkee ne sabab am na bokk ne ci mahajjatul bayda mooy code bi mu daldi ci bind benn téere mu mu tuddee ko yoon bu weex ngir xettali xeetu yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci li mu bind mooy makanatul mara fi islam maanaam jigéen ban pouvoir fan la ka yàlla subhanahu wa taala jox ban daraja la ka yàlla subhanahu wa taala jox ci biir l'islam bokk na ci tamit li mu bind mooy caricature yoo xam ne waa Danemark yi li ñuy defoon ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu daal di jël xalimam daal di bind défendar yonte bi sallallahu wa wax ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ay tëluti mu daal di défendar yonte bi sallallahu loolu seen bi bind tajarratubu an tub alayhi bi rasi bi rasi ay sabu nuru la yutaqu À chaque fois qu'il intervient, il intervient sur un sujet précis, mais un sujet qui a une importance dans l'actualité et dans le devenir des populations. Et cette attitude, de mon point de vue, de, de sérénité intellectuelle, euh, de, patience et de maturation dans la réflexion est, une attitude qui est, de mon point de vue, une attitude très, très impressionnante chez Serine Mansour. Serine Mansour a toujours été engagé sur les problèmes du moment. Parce qu'il a non seulement traduit ses pensées en écrit sur des domaines les plus intéressants et les plus sensibles de la société, de l'islam, de la tariqa, mais il a, à travers ses écrits, concrétisé cela par des actes. Et la parole liée à l'acte fait de l'être humain un être engagé. You are Danemark, des caricature. C'était en 2006. da nga ko yóbbu jadda jox ko ki nga xam ne kii moom moomee tàppeel si arab mu ni ma na nga fa ñëw ajjuma dana pare ma ñëw ajjuma fekk ma fowaaji ma toog ba nu julli juma ba pare ma ñëw ma nekk dem nga ma bu tey suba nga ma joxoon daal mu mënu ma ñëw parce que bi may tàppee texte bi te guddi ajjuma ji dama gént yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni mën naa dem jàngi taxi bi si gaara yi wa an yamnau nayla rusumi fa man saa ila nashriha yaxdu ka faili sabati ka faili ala usrati dunya shuuban wa qaadatan shuuban wa qaadatan wifaaqun liman ilmasi xurmati jinnati dafa def benn appel

Parce que c'est vrai que c'est, très facile de blesser les musulmans. Vous pouvez dire ce que vous voulez contre un musulman déterminé, mais dès que vous touchez évidemment à la personne du prophète, là vous êtes sûr de blesser. Personne n'est plus attaché que les journalistes américains à la liberté de la presse, Effectivement. à cette liberté de s'exprimer. Le fameux premier amendement ah vous permet de tout dire. Mhm. Mais ils se sont tous réfrénés parce qu'ils euh, dans, la, dans la reproduction de ces caricatures, mhm. parce qu'ils disent mais pourquoi est-ce que je vais prendre le droit de blesser quelqu'un uniquement parce que je le peux Cette manière de s'auto-réfréner, ça, c'est la bonne compréhension de la liberté d'expression. C'est celle qu'avait avait Mansour Barambari. Et quand il appelait à ce pacte de non-agression entre les religions, il voulait précisément que la spiritualité religieuse vienne, si vous voulez, euh, euh, insuffler cet esprit d'harmonie et cet esprit de tolérance à ce qui est autrement euh, une sorte de loi de la jungle. Il dit de toute façon, ceux qui essayent d'atteindre la personne même du prophète garde euh, leur temps. C'est comme s'il tapait des mains sur du fer froid. Mhm. C'est l'image qu'il avait effectivement utilisée dans, ce poème. Et c'était tout dire, ça. Serine Mansour était un intellectuel organique, dans la mesure où il avait en lui la densité du savoir. Pour parler comme Elixir il avait simplement une centralité du savoir. Le nom Borom dans les Dara, qu'on appelle tout simplement euh, école de vie, à l'époque pharaonique, qui est devenue par la suite euh, université, qui peut devenir par la suite école au sens doctrinal, euh, on n'y n'enseigne pas, on n'y apprend pas qu'une seule discipline. C'est une pluralité de disciplines qui pousse à utiliser le concept de dara. Et Serigne Mansour, qui était Borom Daradi, il avait donc une certaine maîtrise des disciplines qui étaient enseignées dans les Dara. L'intellectuel, c'est quelqu'un qui, par sa situation, est investi de la responsabilité d'être euh, porteur d'une parole publique et donc d'une parole qui a des effets. Et sur ce plan-là, de manière éminente, bien entendu. Euh, quelqu'un comme Cyril Mansourci mhm. est un intellectuel euh, au plein sens de ce terme et dans la dimension éthique que je viens de rappeler, mhm. puisqu'il a toujours considéré que sa fonction était une fonction d'éducateur. Son surnom, son surnom d'ailleurs de Borom ah euh, dit, bien cette dimension-là. Il est un intellectuel qui appartient probablement à une double tradition, qui est une tradition arabo-musulmane, mais qui est aussi une tradition islamo-wolof. Et pour quelqu'un comme moi qui les bouts, il participe aussi d'une autre tradition parfois qu'il connaît, qui est une tradition spirituelle qui vient de ce monde-là. Il y a à la fois ces trois registres dans lesquels il fonctionne et peut fonctionner. Mais bien sûr, ces trois registres sont commandés par une spiritualité islamique et l'appartenance à une tradition qui est une tradition tidiane, qui organise, si vous voulez, ces différents itinéraires intellectuels. man fekk naa benn yoon boo xam ne al alxaaji euh, euh, Masek Diop rahmatullahi alayh, bi nekkoon zawiya moom Cheikh hadji Malik, di fa imam diir bu yàgg yal na yàlla gërëm jëfam mu doon mottali firi alquranam xalifa bi dem ci ñu ànd ak moom bi mu génnee téere bi commencé di firi alhaakumu takaasur jëm minal jinnati wannaas bi mu demee ba commencé firi ba nekk ci téere bi chara bi bi ne abal ma téere bi mu jox ko ko sëriñ bi jël téere bi tëj ko lu matul fukki minute ak juróom sëriñ bi tafsiral nañ ci alhaakum ba minal jinnati wannaas te dara desul loolu kon dafay wane dimension intellectuelle ak waxtu ànd ak mémoire bu tenace boo xam ne na mu jàngoon yépp fa tabarakallahu daf ko wattu takk ko mokkal ko nga xam ne kii li muy wax du xam-xam rek boo xam ne dañ ko bind ci ay téere waaye leer la goo xam ne yàlla daf ko sànni ci xolam ndax yàlla moo ne wattaqullaha wa yuallimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim bi muy gën a ndaw booba sëñ Mansour la daan fooye xam-xam am na bis sëñ Babacar Sy radiyallahu anhu di dem Dakar mais train bi ko doon yóbbu passage yi sax sëñ Mansour da ci doon way mu ni tara la daa kullil marasi ka annahu boo demee ci gaar boo gis rek ala ajubun badru mu niru la xoratubu waaye xoolal mu ne waa mislu kees fii za taarudi wal xanaa kadalika puut neamal xotaanu bi xa sirbu dugal puut démb si wa xotaan wa barñi wa tëngeejun mu ne wa caaro yaraaxuha fa kullum biha wafdu maraamul xurbu wala seema marsa dakara warax biha tadaxama fiha naasu laysa biha la aybu faaza nuzulu li izdihamin kase walaw laa maqaamul xobi kaana bi la xarb donc nga xam ne ci ci ci wàllu arab sax bind sëriñ xaaj sëñ foo ko gis da nga ni xam-xam moo ko mën a yëngal. te gis nga borom xam boo xam ne nag da jàng ba am xam-xam li nga war a gën a fonk gannaaw sa diine mooy lecture ndax bu dee matière bu mu spécialisé wu matière boobu mu ngay dund sëñ Mansour du génn rek ci matière yooyu mu ko lire. te nag xam nga nit ñi yaakaar nañ ne amul amul sax jot pour loolu waaye bu ko bu waxataanee ak nit ñi ba nit ñi dem ba nit ñi génn nga ci téere ya ndax loolu daf daan xëy ci téere yi ba min te su bindee style ba ak na formuler les phrases da nga xam ne kii sunu borom am leneen lu ko defal waaye du jàng ci daara ji rek génn texte Serigne Mansour boo lire waxuñu la sax euh, forme morphologique bi li ci kaw mais so démé ci sens bi li ci bir rek di nga xamni ki borom xam-xam bu ànd ak leer la xam-xamu lèr la muy limu bind ci ci ci marsiye yi mu def bien avant muy jot khilafa gi waye test yenen marsiye yi mu def après papa Abdou Aziz après la khalifa ci lañu gëna xamé dimension intellectuelle am ci walu mbindam inni tayaqantu wal aqdaaru talqaana ان المنيه لا تزال تغشانا اك بنين قصيده ميميه بو خامتيني جوينا سي بابام عبد العزيز امنا سي بن فير تي بير قصيده بوبو مي نانكو يا دان دجالي بارتي يا دان دجالي دينجي ني نيك بن وقتو بو ريو مي ناري تانغ تاك ياو يا دان ياو يا نيك سابور بومبيي بي في تاك تاك بوبو لي مي سي ديماسيون بيم كو وخه غا خامتيني كي ديماسيون بوروب خام خام لا لله دارك يا عبد العزيز ويا Malik être un intellectuel c'est pas on est intellectuel par la formation ou par la langue on est intellectuel dans la manière dont on opère son intelligence pour comprendre des choses. La langue n'importe pas, la langue porte ces mondes de pensée. Même quelquefois ces glissements de l'arabe au, Wolof, du Wolof au français, montrent qu'il peut aller plus loin que moi. Parce qu'il a des procédures et des détours qui peut opérer, moi je ne peux pas. Parce que la langue véhiculaire de cet enseignement-là, c'est le Wolof et li nu bind en wolof mais c'est une production incroyable C'est Adi Touré bind ah ben, Cheikh Moussa Ka mais aussi euh, euh, chez Gassama Quoique c'est la richesse intellectuelle des daara et il y a deux daara parallèles Dara bi nga xam ne dem université ak daara nga xam ne Nous menons notre ñu Mansour cette jonction et c'est pour ça je reviens sur ce que je disais mettre ces ressources à la disposition des universités qui sont de traduction occidentale, c'est effectivement ouvrir des possibilités de conversation et de discussion qui utilisent les différentes traditions et qui enrichissent à la fois notre intelligence, mais enrichissent aussi notre compréhension du monde dans lequel nous vivons. Depuis que le professeur Amarsamb a publié Contribution du Sénégal à la littérature d'expression arabe, beaucoup de mémoires, de thèses et de livres ont été produits qui nous éclairent sur l'érudition islamique en Afrique de l'Ouest. Si on enseigne Hegel dans le, euh, dans le programme de philosophie et que les candidats au baccalauréat en philosophie doivent connaître Hegel et Nietzsche et, d'autres, et, Max et les philosophes athées, alors on pourrait bien inclure quand même dans le programme de philosophie Cheikh Ahmed Bamba ou euh, Ibrahim Nias, ou euh, Sidi <laughs> Haj Malik, Khalifa Ababakar ou même euh, Jawahir Mahani. Si des millions de Sénégalais sont, sont et que Jawahir Mahani est l'œuvre, n'est-ce pas, de base de la doctrine de ce livre-là est un livre de philosophie. Je prêche pour un remembrement des savoirs qui passera par la mise en valeur de la partie la plus méconnue de notre héritage culturel et intellectuel. xalifa bi sëriñ Mouhamadou Mansour boole waale si stratégie économique ba noppi indi ci yan voie la ndaw ñi war a jaar tey mu indi ñu benn solution mu ni mooy lan agriculture mu doon loo xamante ne xalifa bi def ci insister beneen exemple bi ñu si joxe mooy bépp ndaw bu ko wër tey mu jàngal la kenn ku nekk yaa ngeeg sa entreprise loolu yëpp di wane sëñ Mansour cultivateur la ba noppi nag woo nit ñi ci xam-xam waaye it woo leen tamit ci wàllu liggéey loolu mooy rapport yi nga xamante ne tey mi ngi ko am ak jeunesse bi. lii lii. bu doon fukki tool bu fukki tool. ngeen def ko ngeen def ko it. mérito na lépp lii mais mérito na moom Cheikh Cheikh Seydou Mouhamadou Mansour lépp te suba la ma woo. te suba la ko woo moom sëñ Cheikh.

le legs de Sheikh Mansour est fondamentalement intellectuel. Cette dimension intellectuelle doit être préservée, doit être connue et diffusée à grande échelle dans le monde entier. Aussi, il est impérieux d'inclure le patrimoine issu de cette école dans le tissu pédagogique sénégalais en raison de sa grande richesse. Il faut le sauvegarder, le préserver et le transmettre aux générations futures. Il faut s'inspirer de cette école de pensée pour résoudre les nombreuses difficultés auxquelles l'école sénégalaise est aujourd'hui confrontée. Au bout de deux jours de médiation, les partis ont accepté de réviser leurs positions respectives. Il fallait trouver le moyen d'aplanir les divergences afin que nul ne perde la face.

une semaine avant date officielle ubbi bi lu kéemaane mooy premier vendredi bu mu fi def avant vendredi ubbi bi dañuy toog bi 10 heures rek xale ndaw yi day jékki-jékki mel ni am na lu leen xëcc ñu ki jumaa bi rek ubbi bunti yi yëpp ba mu set ñu taxaw ñu ne tey lañuy ubbi jumaa bi bi ñu toogee bi deux heures heure julli ki ñu doog a xam ni ki sëriñ bi du ñëw jour boobu il faut une semaine après lay ñëw mais loolu koñ bi bés boobu il faut nga fekkee xale yi bu ñu jógee xale yi ñoo ubbi jumaa bi ñoo ñëw rek ñu toj parce que xam nañu ne ki Serigne Mansour mu ngi Ziguinchor ñu yaakaaroon ne ki vendredi boobu sax la ñuy inauguré jumaa bi ñu daal kii teg beneen vendredi ñu doog koy inauguré Le vendredi 15 décembre 2006 restera ainsi gravé en lettres d'or pour la postérité dans les pages d'histoire de la vie de toute la communauté musulmane de Ziguinchor. Ce fut un jour de prière, de soulagement, de joie et de bonheur. تدر السرين بي الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين حمدا لمن خلق الحلق ليعرفوه وليعبدوه وقضى على بعضهم أن يوحدوه وعلى بعضهم أن يجحدوه سبحانه وتعالى من خمني ما وقت القرآن إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين Eh, imam Abbas Sagna ak Mbacke Camara ñoom ñi nga xam ni kii mooy moo fi teewal soose yi kii teewal fi joolaa yi nee nañ ci kanamu sëriñ bi dañoo bëgg a joxante loxo ba ñëpp xam ne sëriñ bi def ñoom ñëpp ànd nañ ci ñu jóg taxaw eh, illallah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 ne gouverneur jébbal na ma caabi ngi koy jox imaamu soose bi ajjuma ji ñëw na jiite bi ci topp joolaay jiite bu teewee soose yi bu ëllëgee eskay la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هم الذين حيوا لأمة محمد في سنغال وفي زيغنشور وفي حي بوكوت لبناء هذا الجامع نشكرهم شكرا جزيلا ونشكر الإخوان الذين كانوا سببا في هدور شيخنا الكبير هنا الحاج منصور سي في سيغنشور ليكون سببا في افتتاح هذا الجامع نشكر الله سبحانه وتعالى تسلم المفتاح والله خبير بما تعملون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم nekk. ma ngi nuyu mbooleem kilifa bu fi nekk. di leen sant. mu ngi leen di sant. teraanga ji nga xam ne fan nga ñu ma ko. teraanga ji ñu ma defal. teraanga ji nga xam ne fan nga ñu ma defal. suñu ilimaan yi. ñaari ilimaan yi. ilimaanu joolaa yi. ilimaanu joolaa yi. ak ilimaanu soose yi. ak ilimaanu soose yi. ñëpp d'accord nañu. ñëpp d'accord nañu. yàlla yàlla fay leen. dëgëral seen taxawaay yokk seen sutura ñu ngi leen di ndokkeel bu baax di leen sant bu baax waaye fa tabaarakallah li ma bëggoon yëpp am naa ko maa ngi leen tàggu nag bu subaa dem Dakar jërëjëf xale seen loxo ma ñaan Good Ready. يسر لنا كل أمر ربي من كرم يا خمنا غي دف سجام يا جبنا الجفيا وأنت ذو رحمة ورأفة كرما سيرمن دي جيتو سيمر يا لامبو جليا ثم على الآل والأصحاب قاطبة موجنت جلور ندي بدل كر جبلية اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يؤتك سترة ويا عظيم العفي ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم السلام النفع ويا عظيم المن ويا مقل الاثرات ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي أسألك أن لا تشوي خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذابنا فمن علينا إله العرش خالقنا بصحبة القطب في دنيا وأخرى بارك مكة بارك مدينة بارك فاس بارك تيوان بارك شيخ الحاج مالك بارك شيخ الخليفة الفاتحة مع صلاة الفاتحة تلالين لخوي خليفة باغي il prit congé de cette belle localité le samedi 16 décembre 2006 en direction de Dakar afin de préparer son voyage pour la Mecque sur invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc. association

mu am bibliothèque bu baax bu nga xam ne ñëpp mun nañu ñëw di def ay recherche ci l'islam loolu day tax ba juma bu de la paix nekk juma bu nga xam ne képp ku ñëw fii Casamance fi Ziguinchor mu bëgg jaar foofu di fay julli di ñaan en quelques minutes cette histoire riche en émotions. Elle n'est pas terminée et elle est à suivre, puisque Serigne Mansour aurait souhaité que différentes actions de ce genre menées dans cette partie du Sénégal puissent aboutir à une paix définitive pour la Casamance. Et les autorités devraient s'en inspirer et impliquer davantage les forces religieuses de ce pays pour qu'elles participent au processus de paix en Casamance. gis naa ni sama maam Abdou def na si ay jéego. ba def si xasida bu doy waar. même sëñ Mansour bi mu dem discours bi dafa indiwaat xasida sama Abdou. deuxièmement sëñ Abdou si boppam al amin def na si ay jéego yu bare bare man ma yaakaar ni. suñ ñëwee toog waxtaan nañu ñu bàyyi woon loxo yi si nitu diine suñu ñaanee sama waa kër maam sëñ Touba waaw ñoom cardinal bi ak ah, ñeneen ak ñeneen ñi si am wàll ñi si am cër ñu toog waxtaanee ko man suñ ko bàyyee seen loxo yaakaar naa ni bunt dana feeñ. Le khilafat de Serigne Mansour a duré 15 années, au cours desquelles il s'imposa au plan national et international. Parmi ses sorties à l'étranger, nous pouvons retenir cette conférence mémorable qu'il donna au siège de l'UNESCO à Paris. Ce fut également le cas de cette rencontre qu'il a eue avec les fidèles d'Italie regroupés à Milan, rencontre qui fut remplie de bonheur et d'émotion. Si les attributs de l'académicien pouvaient être une réalité, nous aurions déjà placé Borom Daredi parmi les immortels et pour l'éternité. Mais voilà que le samedi 8 décembre 2012, le froid, la brume et la neige laiteuse annonce la disparition de Borom Daradi au monde entier. Depuis l'hôpital américain de Paris, 6 au 63 boulevard Victor Hugo. Consternation, tristesse, bouleversement et songes démesurés envahissent Paris, ville de lumière. Sa dépouille atterrit à Dakar à bord d'un vol spécial sur le tarmac de l'aérodrome militaire de Wakam. La radio diffuse en direct l'événement. Il est 3 heures du matin. Nous sommes sur la route en direction de la ville sainte de Tuawan, au milieu d'une multitude de véhicules, derrière le motard, qui fend le chemin à l'aide d'une sirène au sens strident, comme pour réveiller les habitants des quartiers qui se trouvent sous son passage et comme pour leur dire adieu. L'image attendrissante d'un garçon en pleurs, accroupi au sol, les bras ballants pointés vers le ciel, attira toute notre attention des images difficiles à oublier. Serigne son fils, en posant ses lèvres fiévreuses et palpitantes d'angoisse sur le front lumineux d'un grand homme de Dieu, lui témoigna comme pour dire que la bonté légendaire, la générosité incommensurable, l'attention particulière qui ont marqué la vie de Serine Mansour sur terre lui ont également survécu dans l'au-delà. njeexital bi mu bàyyi ci ñun mooy xam-xamam ba tax nañu oosu ngeen te mooy tàbbeem ga jëleen ba tas Sëriñ Mansuur nag dem na waaye jeexale ne dundam ko ci njëriñ ñu gudd lool lool te yaatoo si xol ce film n'aborde qu'un seul des aspects de son existence très riche nous n'avons pas parlé de Serigne Mansour en tant qu'acteur de développement économique nous n'avons pas non plus abordé la dimension mystique de son œuvre ces aspects occupent néanmoins une place très importante dans la vie et l'action de Saïd Mansour Si Borom Daraji. Borom Daraji Dal gàcce ngalama yalla sam te yok sutura ci njabootu Sëriñ Mansour Si Borom Daraji Sëriñ Cheikh Tidiane Si ak ay rakam yep, amin ne dafa am ñoo ni de xéewal la ci ñoom ne moom mi dem ca la bopp xayaati xayrun lakum wa mamaati xayrun lakum ca la bopp kooku am na yaqin ne day jund fii wala mu dem fële te foofa dàq fii lam fay fekk dàq fi akrim bi akrim bi min aalimin wa muallimin ra wolof de war na seetaat wax boo xam ne wax na ko te moo di benn men menn mbalka ñaari kuy bu ca bokk sëgg di naan ma ne waaye Cheikh Serigne Mansour laa gis mu ko doon mbalka moo xam ne téeméeri nit wala lu ko ëpp mën nañu sëgg di fa naan te kenn du yëg na sama moroom ngi ci sa wet ndax la ngay am daf lay doy la nga xam ne moom la moo continuer ndox ma itam ca naan waayu yaatu na yaatu boo xam ne kenn ku nekk mën nga am la nga bëgg ci dàq ni la mën a mel Babacar ay am lu maam ku ma jaamo ku ma penda ak baate penda xar yàlla bopp sëñ bi na la yàlla dolli ay leer te tax nu si sa barke bilaay yàlla ko duy ba mu fees sa maam suñu maam sëñ bi na la yàlla dolli ay leesi ay mënu ma ñàkk a jooy noonu laa ci bare morom morom ko bëy moo ma yeewoo bis boobule yendoo ko fanaane ko yal na ma yéexa dalaat si fees aa ah, yàlla moo ko duy ba mu fees si ay soxna asiyatu maa ngi sëriñ Habib am na njariñ sa am na njariñ bawa Babacar mooy baay soxna Astu yaay ya li ma wax mooy sëriñ Mansuur man de duma xol yëpp diis munu ma la fàtte ma ko ba mu fees borom saamam ne xol yëpp diis yàlla yàlla dolli na ay te taas ñu ci sa barke si xol sëriñ bi diis sëriñ am na njariñ Sénégal ak li ko wër xol yëpp yàlla ko duy ba mu fees xol yëpp diis yàlla ko duy yàlla ba mu fees xol yëpp diis yàlla ko duy ba mu fees ah. xol yëpp diis يلا قضي بمفاس خلي يقديس يلا قضي بمفاس سنك وجعل سمرام بابا تبت حيا وتبت ميتا